allahumma arina alxaq xaqan warzuqna warzuqna tibaa wa arina albatila batina warzuqna ijtinaaba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa Guédiawaye Infos ñu ngi leen di ñu ngi leen di ziyaara di leen di ndokkeel di ndokkeel suñ bopp ci bés bu tedd bi nga xam ne mooy bésu àjjuma di dellu si yéen di am ak yéen benn émission bu ñuy wax minbaru rasul yi di émission boo xam ne dafay xam ne lépp loo xam ne jàngaleem yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ci lépp loo xam ne soxlaal la jullit ci wàllu àddunaam ëllëg ci àllaaxiram encore tey mu émission boobu la ñuy ci ci bés ci heure bi ci waxtu wi di laaj ñi jàngale waxe yonent yàlla muhammad leeral ko nit ñi rawatina bu tomb ay xew-xew yoo xam ne am na ci diine lislaam wala am na ci li nga xam ne moom lañ bokk muy réew mi Euh, ñi felul nak bala ñoo duggul ci jàngale waaye nañ def jàngat ci li nga xam ne xew di ay fitna ci wax ak ci jëf te bu ci nekk rek mën na lor nit ki mën na lor askan wi te yooyu yëpp lan moo ko andi bokk na ci mooy sopp nit bokk na ci topp sa bànneexu bakkan na ci mooy faggu àdduna bokk na ci topp poñetu àdduna yooyu yëpp bokk na ci li ñu poussé jamono ji ñu dund jafe-jafe yi nga xam ne tey ñu ngi koy dund ci Sénégal euh, ñi ñi ñiy dégg nag ay violence yoo xam ne xew na Sénégal nan la ko diina gisee nan la ko diina déggee wax yu ñaaw jëf yu ñaaw yi nga xam ne mi ngi am ci parti bu mën a doon ak ci kuréel bu mën a doon l'islam ñaawlu ko l'islam dàq ko am lu ñu tuddee nervi ñi nga xam ne dañuy gàddu seen yet di dóor ay nit wala wala nervi yoo xam ne gàddu wuñ ay yet waaye fu nekk dañoo nekk ci gannaaw clavier yi ñu koy wax ordinateur yi cag di kaj ji ñooñu tamit ay nervi lañ wax bu ñaaw moo jàpp nit dóor ko ba gaañ ko ñooyam képp te bu ci nekk yow mi koy def danga am responsabilité ëllëg ci kanamu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne Ya jël nit def ko muy sa leader wala def ko muy sa xarit mu jaral la lu nekk jaral la ngay dur ay nit jaral la ngay saaga ay nit jaral la ngay xass ay nit est-ce koku dan la yom yomal qiyamah wa est-ce dan la jëriñ fi loolu lañu wara ba pare kon yow mi koy def jappal ne ki koy def sa mbok sa mbokkam nit la waxuma sax jullit waaye ki nga koy def sa mbok nit la ta al ta yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne alxalqu kulluhum ciyaalullah ahabuhum ila allahi anfaahum li ciyaali yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit ñëpp njabootu yàlla lañ waaye ki yàlla gën a bëgg mooy ki ëpp njëriñ ci njabootu yàlla yi waaye nag ki yàlla gën a jëppi mooy ki gën a am lor ci njabootu yàlla yi kon nag nit ki fexe ba jege yàlla ci jëf-jëf ju baax jëm ko ci njabootu yàlla moo gën ngay jëf-jëf ju ñaaw di soro yàlla ci jëf ji ci ci li nga xam ne yaa ngi koy def ci mbindeefi yàlla yi kon nag yow it di di sa jel bi jël sa yat ngir défendre sa leader défendre ki nga bëgg tax na ngay def lu ñaaw jàppal ne koku ngay défendre wala koku tax ngay def li yalla ko bind bind la te koku amna koku upp doole koy def koku ko mom muy bindé fi te jappal ne koku ngay ngay tax ngay def lolu bis bo feebaree est ce que man la laa faj kooku du la faj yalla rek mo la mën day and ak yow bo amna ñu xam dañu and ak yow bo soo boo demee ba génne àdduna pare nañ ci yow am na koo xam ne dafay ànd ak yow ba sa biir bàmmeel buñ la xasee ba ci pare na ci yow kon nag lan ngay des ak jëf ju baax rek nga des kon nag doomu aadama lim am jëf ju baax la am lu ko mën a jëriñ ci wax ak ci jëf kon yow miy jël di dooraati est que loolu dana la jëriñ ëllëg yow mi jël di xasaati est-ce que loolu dana la jëriñ ëllëg te yow mi toog sa gannaaw loo xam ne gërmande yàlla nekku ci ngir li ne askan moo tax jàppal ne waxtu wa koy wax ku ànd ak yow de waaye am na ñoo xam ne ñoo ànd ak yow te ñooñu ñoo ànd ak yàlla muy muy raqib ak atid moo tax yàlla di la wax ne maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mu ne yent yàlla subhaanahu wa taala dafa ne nit ki lépp looy wax ci bind wala ci kàddu gu jóg ak foo ko mën a jaarale ci lu mu mën a doon yaa ngi koy wax xamal ne ñaari ngi teew di ko di ko fekkee di ko bind di ko noté dossier dañ koy def dossier yomal xiyaama ñi ñi teg ko sa kanam na ko lii kat yaa ko waxoon te ba nga koy waxoon bëggoon lu neex diw moo tax nga di ko wax bëgg diw jox la nangam moo tax di ko wax kon nag fexeel ba jëf-jëf joo xam ne ëllëg moo lay wet la sa biir bàmmeel mooy doon lamp bu lay leeral sa biir bàmmeel ba doo wet wax ma la foofu sax bu dee ci lu neex diw la du la jariñ te munta ar sa bakkan ak ku mën a doon moo xam muy gendarme moo xam muy policier moo xam muy citoyen simple ak ku mën a doon jàppal ne li ngay def su fekkee dañ la ko sant ngir dañ la dominer jàppal ne am na ku leen ëpp doole yéen ñëpp muy yàlla ko yowmal xiyaam dana la ko laaj te bis bu la ko laajee lan xew sa diggante ak ki la ko santoon استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منها نكون ورنا بايخ الأيبو مو يوم توب نيت مو جارال لا ngay def nek yowmal qiyamah da nga paré pour danc mom set wit no yalla soma delu won aduna ki dotumako xam dotumako top loolu yëpp day dañ su fekkee alal alal lañ la fay moo tax nga di ko def loolu yëpp day dañ kon nañ bàyyi xel bu baax ci li ñuy def suñu ànd ak nit nañ ànd nit ci dëgg suñuy wax nañ wax nit ci dëgg parce que ka ngay défendre yomal xiyaam mun laa défendre kon nag booy défendre nit défendre ko ci dëgg kon bokk na ci yi tax tey ñaawteef fii mooy topp ki nga bëgg di def lu la neex ngir moom defoo defoo li tax yàlla yàlla kontaan mais da def ngir moom te nag fekkente ne am na kuñ sa war a sàkku ngërmande mooy subhanahu wa taala allahu wa rasuluhu xaqu an yurduhu in kaanu muminin su fekkee am na ku ñuy ci moom ngërmande ak kontante du kenn ku dul yàlla ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa te yonent bi alayhi salaatu nee na woon laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliqi nit ki amo droit di top nit bay def lu bay def lu neex lu naqadi yàlla di sàkku ngërmande ngir la nak di yalla lolou yalla digli nako hadith bobu liko taxawat ci a dañ ne ñene ci sahaba yi dañ don dem guerre ñi bol nek ben capitaine na len bu ngeen demé lepp lu capitaine bi digle rek nek len ci bañu ñu ba ci ba ci biir waa ñu ne taxal len mat ñu taxal ñum ñep mo tal ñi tal mo dugg ci biir gay nako dedet duñ ko def parce que ñun ba ñu topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg mu ci safara moo tax kon nag du ñëw fi dugal suñu bopp ci safara mu ne kanaan yonent bi waxul na ne seen capitaine lépp lu mu leen digal ngeen def ko ñu ne ankay waaye nag ba ñu ba ñu topp ba ñu topp yonent yàlla Muhammad dugg safara taxutoon bañ ñëwee wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam li waa ji di waa ji naroon def mu ne leen su ngeen ci duggoon du ngeen ci mus a génn ba ila abadil abidin ndaxte laa taaxata li laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaliqi nit waro du topp mbindeef ci lu nakali yalla kon nak yow mi nek ci lolu ngir li neex sa leader bay lor jamu yalla jappal ne yaa def lo xamne ne ëllëg mën na laa côté ser loo xam do doo xam fum fum fu lay jëmee te it bokk na ci tay li waral ñaawte fi moy moy nit ñi dañu topp seen banexu bakkan di dox ci lepp lo xamne ne seen gërmande bakkan moo ci nekk kon nag soo bëggee mucc lenn nag mooy tax nga mooy li alquran wax wa amma man xaafa maqaama rabbi wa naha nafsa an il hawa fa inna al jannata hiya al mawa koo xam ne wuute nga sa bànneexu bakkan ragal ëllëg sa maqaamu borom taxawaayu borom bi su boobaa yow sa dëkkuwaay ëllëg mooy aljanna kon nag nit ki bokku na ci lu meuna dimbalé dimbale nga top sa banexu bakkan yu bari bokku na ci top sa banexu bakkan yi nga xam ne ngi koy gis ci borom ñaari turi da nañ ci ñew inshallah jëf ju ko bon amut ju ko bon amut waye top sa banexu bakkan mo la ci duggal te yoy yëpp te dañ nan bakkan du dig lu ñaw kon nak fexé ba wuté sa bakkan top ci lu neex yalla bokku na ci lu meuna dimbalé kon nak dénkaane bi tay loolu la. ba ëllëg ci waxtu wi incha allah ñu gën koo leeral yi nga xam ne xew na yëpp góor jigéen beeg danañ danañ ci wax ak luwaay yi nga xam ne ñu koy tëral dëppoo ak lislaam danañ ci wax incha allah ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu